Baay xari tabaski yi nuy yóbbu bor la bu ñuy fay sunu boroom ndem moo digaloon Ibrahima mu rend doom ja Ismaayila mu teg paaka ba dawal yàlla rocc ko dugal xarma Cheikh Ibra toog fii ci njaareem ne Ibrahima mii mooy mu njëkk ma tax muy yóbbu xari tabaski at mu jot di ko fayee bor ba ndax xam na ni yàlla ku mu yoreel bor sëñ Bàmba pay ma asamaan ku yoreel yàlla bor lii Baay Faal di def du tey yàgg na